ñaar nañ ko bàyyi xel xarit ak turandoo. xarit ak turandoo nañ ko bàyyi xel. lu tax pataas ak ñaam bi gën a sa suukar pompiteer te tool yi leen di jëfandikoo ba ci kër gi waaye pompiteer daf leen ëpp bopp leen faa bàyyi dem xaritoo yàpp. <laughs> moo kilo bi day dem ba 800 pataas ak ñaam bi ni gaañ ci marché mënuñoo passé 400. waaye dëgg la dëgg la xoolal dëgg la dëgg la ah. tey ni mu seeree. comme ni tere ni seer. da nga ñëw ci turandoo. nañ bàyyi xel turandoo. bu yomal xiyaam doom dana laaj ay waajuram ci yàq. waaw bàyyi lu tax juróom a ci farata ak yàlla ak sunna Muhammad bàyyi lu tax tuddoo tur baax ak bàyyi lu tax jàngaloo ma sama diine. waaw góor jàngaloo ma sama diine dem garaaw. nañ bàyyi xel turandoo. asalaatu xayru mina nawm hayya ala salaat ina salaata tanhaa ani fahsaa'i suñu mbokk ci yaa yo salaatu fatiha sëñ Bamba di salaatu sitta e xoolal salaat li ko yàlla defal ndox turóndoo salaat da koy jaaj ca marché ba yor sa ndox di ko ko wis doo ko defal lu fer gu fedd andi ko ci kër gi takk ko ci musóor wekk ko ci lii mi ñoowaanu ngelaw li di ko nga jël ginaar saaf jël pomme de saaf jël soble saaf te ku lekk ba regg boo jugee dama ko wax ay dëkk njaxate genn góor gu baax ne ma doon kaay ma doon la ci leneen boo koy sàq ni wax da naan xëyu xëyoom su <laughs> may daaneele Mouhamad Diop su may daaneele daan benn sëriñ boo xam ne Jóob la sant benn sëriñ bu mag bu sant Jóob mën naa bañ a wax turam mais Jóob la sant daa toog ak taalibe yi soxna si andil ko reer bi mu taajee reer bi booli ginaar bu teg booli ginaar boo xam juróomi ginaar a ci ne taalibe yi raxasu bëgg a reer sëñ bi neen déedéet jaamu yàlla doog a reer farata bu taxawee warootoo def daal loolu farata ñu jël boori bi ginaar ba teg sa kanamu sëñ ba juróomi ginaar a ci ne sëñ bi kàbbar du julli gee sëñ bi julli benn rakk menn muus ñëw fel palaat bi jàpp genn ginaar yóbbu mu def ñeenti ginaar sëñ bi toog ña julli ñaareel rakka toog di taaya muus ma ñëwaat felaat palaat bi jëlaat beneen ginaar yóbbu mu def ñetti ginaar sëñ bi jug taxaw ci ñetteeru rakka bi seen muus mi di ñëw ànd ak yeneen ñaari muus sëñ bi daal di fëgg pooj bi daal daal di fëgg pooj bi bëkk néeg bi daal di ñëw jël boole ginaar bi ñëw tekkee tam sëñ bi sëlmal bëkk néeg bi ni bëri ñu gaa sëñ bi maa yàquma julli mun ko yow mi yaa defar julli